jullit yépp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci kàttanu yàlla subhaanahu wa taala ak i mbaaxam la ñu jotaay bii jëmee ko ci fàttalente ak delloo sente ak laayante biir ci ndigalal sunu kilifa gu tedd gu baax gi fii ci safina tv safina fm di imam cerno hamid yara ousmane ban tabarakallahu ak ci taxawaayi sunu directrice bu baax bi di madame gange aja ñima ba ak ñu féete ci wàllu jàppandal gi yal na yàlla subhanahu wa taala boo la nangul ci dara yonent bi alayhi salaatu salaam ñu nekk ci fan yu barkeel ci weer wu màgg te tedd di weeru tam xarit bokk ci ñeenti weer yi yàlla subhanahu wa taala joxoñ ci alquran ni bu leen ci toggoo bàkkaar فلا تظلموا فيهن أنفسكم ويرو تم خرق بي چلا بوك كون بكار بوچي دف خامل ني دنجي فول بكار با يانن يعني تيالو موسل وايي يي ووچي دفيت دنجي فول يول با ñent wër yoyu tam xarit bi ci la bok rajab ci la bok wëru diggi ci la bok mag ñi daan ubbee at mi ay jëfi yiw yoo xam ni gis nañu ni moo gën dal xelkat tàmbalee ko ubbee ko ab safaan te subhanahu wa taala fa muy jaarale yiwam bari na te léppit lu ci mag ñi digle santaane ko ci ñu ngi ko génnee ci njàngale yonent bi alayhi salaatu wassalaam bésu tam xarit am na fukki yiw yoo xam ni ñu ngi ci fukki yiw yooyu yëpp Macky daan nañu seet nuñ ko dajale def ko ci bés bi ngir daboo ko yiw ba nga xam ni moo nekk ca sunu borom subhanahu wa taala biñ ciy jëkk tudd mooy julli naafila yiñ ciy def ci bésu tam xarit di ñaafile ñeenti rakka yooyu le daañu wax si naka la bi ko ñaareel mooy kooruk naafila gi te mooy woor bésu tamxarit te mooy bésu fukkeel bi yonent bi niseroon na yéene ni bu ko fi at mi mu génn àdduna bu ko fa déwén sa fekke dana ko booleek bu juróom ñeenteelu fan ba booleeg bu fukkeel bi yàlla dogal ba at ma laata dellu si mu wuy sunu borom subhanahu wa ak càngaayal sunna bi ñu ciy sangu ni ngay ca cangaayal armal cangaayal waaju julli ju juma Jana janaba yéene rek moo leen wuutale nga sango ko cangaayal tàbbeeku ci bis bi jëkk ci at mi mooy bu ñetteel bi bi ko ñeenteel mooy tusngalu bi ngi ciy tusngalu fa tabaarakallahu moom it ak ngëneelu boppam bi ko juróomeel mooy ziyaare ci borom xam-xam moom it ak ngëneelu boppam bi ko juróom benneel mooy seete ci ku feebar mu ànd ak ngëneelu boppam bi ko juróom ñaareel moo di masaa ci boppu jirim tàpp ko raay ko mu ànd ak ngëneelu boppam bi ko juróom ñetteel mooy bégal ci sa njaboot mu ànd ak boppam bi ko juróom ñeenteel mooy lelli bi nga ci lelli say we mu ànd ak ngëneelu boppam bi ko fukkeel mooy jàng bi nga xam ni mag ñi daan lañ ko def di ko santaane te mooy jàng ci ginnaaw faatixa ak boo jullee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam junni ixlaas xul wala waxat ba mu jeex nga tëjee ko salaatu ala nabi def ko hadiya yonent bi alayhi salaatu wasalaam ziyaara ko ko su ko defee ñuy nekk di xeeti ngëneel di yoo xam ni sunu mag ñi baax ñi de daan nañ ci d'abord di ko wute ci bésu tamxarit xarit ngir daje kook yiw ci mbaaxu yàlla subhanahu wa taala ak tabeem bu fekkee ni julli naafila gi la lenn ci boroom xam-xam yi day wax nañu ni ci guddi ga lañ koy defee ngir daboo ko ngëneelu lay guddi amit ñu wax ni ba tey ci boroom xam-xam yi lépp lu ñuy def muy ak jaamu ci bésu xarit beccëk ba lañ koy def ndax bés ba lañu tudd kenn newul layla ashura waaye yow ma bés ba lañu tudd yow ma ashura comme ni ngay defe say jaamu guddig laylatul qadr guddig lañu tudd laylatul qadri waaye bu dee fii yow ma ashura ñu ni kon loo ciy def ci jaamu yàlla ca bëccëg ba la leen ci borom téere wax na ci lañ koy defee moo tax am ci borom xam-xam yi ñu wax ni bépp jaamu yàlla booy def ci bésu tam xarit mu ne ñu ko taamoo nga def ko ci bés bi moo tax naafila giñ ci tudd nga xam ni ñeenti ràkk lay doon doon di naafila yoor yoor lay yoor yoor ci gannaaw boo sangoo sa càngayal sunna soosu nga xam ni càngayal jaamu yàlla la moom ngay tàbbee ci bis bi jëkk ci at mi leel li say lal sa tusngal su ko defee nga julli fa ñeenti rakka ñeenti rakka yi nag doo def ñaar sëlmal ñaar sëlmal waaye danga koy jullee ndoo comme ñu ngay jullee tisbaar ak tàkkusaan rakka bu ne nga jàng ca fatiha benn yoon ak ñaar fukki yoon ak juróom ci suratul ixlaas xul wala waxat nga def ko vingt cinq fois ginnaaw benn fatiha bu nekk ci benn rakka bu nekk nga teg ca ñaar fukki ixlaas ak juróom mu ne ku ko defee noonu ci bésu tamxarit ca yoor yoor ba boroom xam-xam yi nee nañu dinay tax ca mbaaxu yàlla subhanahu wa taala ak tabeem ak ñeewanteem ciy jaamam mun jéggal la ci bàkkaar yi juróom fukki at yi nga génn teg ca jéggal la ca it ci mbaaxam ak tabeem gu réy googale bàkkaar yi juróom fukki yi ci sa kanam loolu nag laay wax ni bu ko kenn weddil yàlla mbaaxam googu ëpp na foofu di wéy ma di ci teg rekk naan ku bëgg dafa toll ku bëgg jëlal ku bëggul it bàyyi fi rekk ñi bëgg jël waaye yàlla bul ko di ngatal dara ci mbaaxam bul ko ci jéem a kobosal dara bul ko ci jéem a weddil dara wax nañ ko defal te mag ñi bari na luñ ciy jàngale ciy mel ni jëlewuñ ko fenn fudul ci njàngale yonent bi alayhi salaatu salaam ndax kenn gënu leen koo dégg kenn gënu leen koo xam te kenn gënu leen a mën a roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee ñu nangu loolu ci mbaaxu sunu borom subhanahu wa taala bu fekkee ne koor gi la te mooy woor bi ngay woor bésu fukkeel bi di bu ñu jàppee ni àjjuma mooy doon juróom-ñeenteelu fan bi ñu reer ci cere yi bërset di fukkeelu fan ba bu ñu ko jàppee noonu boo naafilaa noonu booleeg sa koor koor googu ñu wax ni moom daf lay xaari ca yàlla subhanahu wa jiitu la fa koor googu bokk na ci yàlla fee teral ëllëg ginnaaw bi mu la aaree ci at mi mépp incha allahu taala ci musiba yeeg ndokk yeeg yu nu demee nga woor benn bésu tam xarit defal la yooyu yëpp ba noppi nag di la xaari fa yàlla subhanahu wa taala boo fa fa fekkee incha allah boo demee fekk fa teraanga ju rëy bu fekkee ni jokk mbokk gi la ak it ziare bi ngay ziare ji boroom xam ak seeti bi ngay seeti ku feebar bokk na ci ngëneeli ñett yooyu boo leen defee ci bésu tam xarit yàlla subhanahu wa taala ci mbaaxam akuk tabeem dana la ci jox ñetti junni yi yool bégalee la ko yow tabaxal la ci ñetti junni njënd njënd mooy building ca aljanna ba noppi nag yépp yaa leen di moom te yaa leen di dëkkee ji teg ca jéggal la ñetti junni bàkkaar lépp ci mbaaxam ak tabeem yàlla rekk a baax te yii yépp mag ñaa ngi ko jële ma waxaat ko ci njàngale yonent bi alayhi salaatu wassalaam pen du ci doon bida li ñu bari di wax yii yépp dafa tolloo li may wax rek ku bëgg jëlal ku bëggul bàyyi fi ñi bëgg jël te yàlla nañu ko yàlla subhanahu wa taala nangu leen noonu bu dee masaa bi nga ciy massa boppu jirim la waxuñu rek nga gis jirim rek woo kaay ku ne nga ne ko kaay raay déedéet massa waxin la woo xam ne danga koy tàpp jirim mooy ku baayam faatu te majooragul nga tàpp ko moo xam góor la moo xam jigéen la taf ko ci sa dënn raay bopp bi xool ko bët si ñeewante ko bàyyi daan xool am loo ko bégale ndem am nga ko yëkkati lu am solo may ko boo ko amul nga seet loo ko bégale saralee ko xolam ku ko def ci bésu tam xarit jëlee nañu ci njàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni yàlla dana la féeteel ci sa wàllu njaboot yow it moo xam yaa ngi dund moo xam buy ji sa borom yàlla dana la wuutu ci sa njaboot yaral la say njaboot moo xam ngay dund moo xam dund waaye lépp it ci mbaaxu yàlla subhanahu wa taala akuk tabeem du luñ ko kenn di weddi bu fekkee ni sarax bi nga ciy saraxale ci bésu tam xarit sarax boobu mag ñi wax nañu ni yëpp jële ko ci njàngale yonent bi alayhi salaatu wassalaam ku ko def bésu tam xarit mel na ni sarax bi yi la rëccoon ci at mi nga génn yëpp def nga ko moo tax mag ñi daan ko tuddee saraxu fay faat bépp sarax bu la waroon te rëccoon la ci at mu nga génn boo saraxee ci bésu tam xarit mel na ne dabu nga yépp def nga yépp te sarax jëleen nañu ci njàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni de dina dina jañ dina tax balaa du ëgsi dina taxit balaa bu ñëwee ba sarax mën na ko fay yëkkatee ni ki yi ñu nekk ci fan yi te mooy mbas mi ñu nekk yonent bi daan na ci digle ci yi mel di génnee sarax booleeg di ñaan di ñaan di génnee sarax kon sarax dina bijji yiw dina xëcc yiw dina sembal aw ay te dana yëkkati balaa dana ko génne gën faa rawate nag bésu tam xarit bu fekkente ne lelli bi nga ciy lelli say we la ak tusngalu bi nga ciy tusngalu ci bésu tam xarit ngëneel yooyu yëpp loolu ci sunu borom di defal ci mbaaxam gi mooy dina la ci fegal ca at ma feebaru xel fegal la ci it feebaru jikko insha allahu taala ci at mi ngay tàbbi yooyu yëpp ci mbaaxu yàlla subhanahu wa taala la amee bu ñu kenn indil bidaa dara du ci bidaa lépp mag ñaa ngi ko jëlee ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee tusngalu bi ñu ciy tusngalu ci bésu tam xarit la yàlla ak mbaaxam ak yi ñeewanteem ci jaamam musal la ci ci lépp lu jëm ci ayu bët mettitu bët ak wànnent mag ñi sax nee nañu doo ca wànnent at moomale incha allahu taala te tusngal bokkit ci lu yonent bi bëggoon sallallahu alayhi wa sallam daan ko def lelli say weyit noonu bokkoon ci set yonent bi alayhi salaatu wa daan ko def te lépp ci mbaaxu yàlla nga koy amee <clears throat> booleeg junni ixlaas yi ngay def nag toog jangoko def ko hadiya yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxuma ne bésu tam xarit waaye bés bu jot waron nagn ko man defal lu mel non sallallahu alayhi wa sallam defal ko ko muy hadiyaam alayhi salatu wasalaam ba tey it mag ñi ci bolé juróom-ñaari salamu yi ci alquran ñu jukki ko bind ko def ko muy safara raxas ko boole ko maanaa jël sa yokko ko ci ndokh ndox ma du fete kaw safara sa moy fete kaw ndax waxu yàlla ku ci nan yàlla mën na lu mussel ci mbaxam ci musibe yi at mi indaaleeg ndokk yeeg safaan yeeg yépp yàlla mën na la ci mussel ci mbaxam ku it jëlal ku bëggul ba fi salaamu yi salaamun qawlan min rabbir rahim bana bo binde sa fatiha julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bind moo xam ci àlluwa wala ci këyit ba pare raxas ko boole kook ndox sotti ndox ma ca kaw maanaam saafara si ca kaw ndox ma fekk bind nga ca salaamun qawlan min rabbin rahim سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ak salaamun hiya hatta matla il fajri salaamu yaa ngoog nga bind ko noonu tëje ko salaatu ala nabi raxas ko boole kook ndox ku ca naan yàlla mën na la musal ci bépp safaan yàlla la mën na la musal ci bépp ay woo xam ne at mi ànd na ak moom yàlla mën la musal ci lépp luy feebar ak lépp luy musiba ak lépp luy bala ci dara yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla ci mbaaxam yàlla nañu ko nangu leen ñu jariñoo ko noonu di jaahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wasalaamu aleykum wa